tey dañuy des ci résultat yi parce que euh, yow nee nga côté Diourbel nga nekk. Diourbel nga nekk ku ne Diourbel sa xel dina dem ci Touba. Touba dañ leen gagné foofu. yéen responsable yi yéen yéen a a liggéeyul foofu ca Diourbel wala affaire bi nu mu demee. non léegi nag euh, li nga xam ne moom laa la bëgg a wax mooy Diourbel sa la région mu am Bambey am Diourbel département am Mbacké tey Diourbel département dañ koo gagné ak 56 pour cent. Bambey mag coalition Macky Sall da ko gagné ak 53 pour cent Touba dañ ko perte léegi nag question bi damay ñëw ci Touba directement. waaw li tax ñu perte Touba mooy Touba président Macky benn yoon lu ko mës a gagné ci soir politique am donte dafay am ay résultat yu baax la fa mës a am ndax en 2012 moo jël deuxième derrière Wade am 48 000 voix 48 000 voix ku am ci dëkk defe naa résultat bu baax la ci politique. bi fa jugee élection législative 2012 président Macky Sall gagné Touba te bobu la géejee nak après mu am leneen beneen histoire bu xew chaque jour wa Touba bu élection joté ñom wa Touba dañuy contre président Macky Sall te en général li nga xamné mom lay wax politiquement nak moy ñafa nek ay jambar lañ ñafa nek nak suma len suma ko waxé moy ña nga xamné ba président Macky Sall jugee teg dekkal ngor. ba tay ñu ngi téye seen ngor ànd ak moom ca loola waxuma nag ñi nga xam ni dañoo àndoon ak président Ablaye Wade tuddee doomam ay doom ñii mu may leen i kër ñii mu may leen nangam tey ñu jaay seen ngor ñu fekk si président Macky Sall ñooñu bokk nañ te ñooñu bi ñu ñëwee ñoo assuré woon président Macky Sall ne ko dañuy da ngay gañ a Touba. ñoo ñan lañu. tey mën naa cee lim ku mel ni mu suñ Modou Mbacke Touma mu ngi mel ni ma soxna maam Xari Mbacke mu ngi mel ni Abdoulaye Ka mu ngi mel ni ku ñuy wax Bassirou si ñooñ ñëpp kenn ku ci nekk da amoon ay relation yu direct ak le président Ablaye waat waa Touba xam la ci PDS teraanga gu nekk président Ablaye Wade defal la ko tey nga bëgg ëlbatiku xalab te pour man loolu dafa ñaaw ci ci ci ci doxin ci dëkk bu mel ni Touba yu mel noonu en général ñoom dañ koy bañ loolu motif la beneen bi mooy euh, résultat yi nga xam ne moom lañ fa am fi mu toll nii ñu ngi fa am yaakaar naa ay 000 voix lañ wax lañ fa am mais 68000 voix yooyu bu kenn jàpp ni yaa ko liggéeyal président Macky Sall à Touba président Macky Sall jëf na lu ëpp voix à Touba bu nekkee ci bilan la ñuy fal wala bu nekkee it politiquement la ñuy wax jëfal na waa Touba lu ëpp voix ndax élection présidentielle defe naa bilan bokk na ci lu koy fal léegi nag ñi nga xam ne ñooy tëb naan 68000 voix yi ñun ñoo tax ñu am ko déedéet ñoom victoire lañ assuré loon président Macky Sall dañoo perte nañ gëm yàlla ànd ak seen ngor donte it indiaale wu ñu woon ngor mais nañ gëm yàlla xam ni it dañoo perte. loolu rek a fi nekk boo gañee xam ne da ngaa gañee boo pertee xam ne da ngaa perte nañ gëm yàlla ñi nga xam ne it ñoo àndoon ak président Macky Sall ca dekkal ngor loolu nag président Macky Sall laa koy wax na xam ni nit ñi dañoo téewoon seen ngor mu amoon xaalis. mu amoon ñoo xam ne dañu jënd ay doomu aadama moo xam ne dañ lay jox oto moo xam ne dañ lay jox kër ñoo ñëpp téye seen ngor ànd moom ca dekkal ngor googu président Macky Sall na dekkali ñoo ñu seeni ngor te ñii fii ñëw di ko gëmloo ni ñoo moom Touba moomuñu Touba seen i kër yi sax moomuñu ko. dekkal ngor mooy la ñu jox leen poste. mu jox leen post de responsabilité ba pare it mu responsabiliser leen à Touba ñi nga xam ne dañoo ñëw tey ne ko moom mën nañ koo garanti dara mënuñu koo garanti dara. ndax amuñu fa dara élection yi wane na ko te ñu ngi jëmaat tamit ci ay élection municipale donte Touba benn list lay am mais it élection yooyu na président Macky Sall xippi bëtam xool ba nga xam ne moom muy proposé xalifa bi na ko proposé ñi nga xam ne ay nit démbam lañ ndax ñooñu sonn nañ lu nekk daj nañ ko ci moom te ba fi mu toll ni ñu ci bari ci ñoom gisuñu ci seen bopp mais nag ñi nga xam ne it dañoo ñëw ndax président su ma nee li ma wax nag politique la su ma su nekkee état la nag état laay wax président amna droit jappalé ko neex. mais lolo ko war sa président mom moy père de la nation. wa dafa wara jappalé jàppale xol ni diw moma voter wala diw voter luma duma duma len jappalé wa lima lima don ma politiquement lay wax suñu parti ak suñu coalition mais su nekké ci euh, république la wax moy képp ko xamni am nga projet bu fiable bu baax bo xamni it war nañ la ci mëna jappalé jàppale day jëriñ askan wi président dafa am obligation jappalé la ci lolo tax ñu fal ko loolu nak ñi nga xam am nañ ko nañ leen jappalé ci lolo ñu yam ca. am na ci ñoo xam ne nag dañuy jóge ca loola ëlbatiku transhumé jaar ca loola transhumé ci politique te transhumance bi wax dëgg neex yàlla pour man pour man daal li gën a bon ci politique daal transhumance ci la bokk. yéen ñi transhumé si APR bëri nañ de. yéen politique bi ñuy période campagne moom yéen na ñi ñi di ñëw rek ngeen di accueillir rek. am na ci am na ci lu man am na ci am na ci loo xam ne transhumance laa ko tuddee mooy jóge ci parti ñëw ci parti. loolu mooy transhumance mais am na ci ñoo xam ne transhumé wuñu ndax président Macky Sall bi muy falu dafa faloo coalition Benno Bokk Yaakaar premier mandaam bi muy ñëwaat di faluwaat bi muy dem bi ñu defee congrès gi lépp dafa defaat beneen coalition mu tuddee ko la grande coalition présidentielle. léegi nag ñi nga xam ne ku mel ni Aïssata Tall Sall kooku kooku ñëpp xam nañu nitu valeur la ku mel ni Mamadou Diagne Fada ñëpp xam nañu nitu valeur la te jàmbaar la ca Ablaye Wade la njëkk a gedd dem créer yëfi boppam ba mu demee am ñëwaat àndaat ak président Ablaye Wade. ñu mel noonu dañoo ñëw bokk ci mouvance la grande mouvance. mais duñu ay transhumance. déedéet man loolu du transhumance ndax ba tey jii newuñu dañoo jël jël seen mouvement wala dañoo jël seen parti seeyal ko ci biir parti wala dañoo jóge fii dañoo ñëw ànd ak président Macky Sall ndax problème bi mooy Sénégal cinq candidats moo fi amoon. cinq candidats yi ñi nga xam ne dañoo jàppale ji Sonko wala dañoo jàppale ci Idrissa Seck kenn du leen tuddee transhumance kon ñu jàppale Macky Sall it kenn du leen tuddee transhumance coalition la ñii dañoo am seen dañoo. wóolu woon Idriss Seck ànd ak moom ñii wóolu Sonko ànd moom ñii wóolu Issa Sall ñii wóolu président Macky Sall programme am doy leen ñu ñëw ànd ak moom.